di ñaanal imaam Cheikh Ahmed Ali Cissé moom tamit yàlla defal ko jàmm defal ko mbooleem waa pay bi di nuyu borom gàmmu gi Cheikh Mouhamadul Amin yàlla sàmm ko moom tamit wëttu ko di nuyu président Baye Ciss mu nga xam ne moom la sëñ bi dénk liggéey bii nga xam ne àddina bi yëpp ñu ngi jug di njëkkalante di fi ñëw si façon boo xam ne wax dëgg yàlla bu taxawut léegi tey liggéey bi lu si bëgg yëpp mu am ko tey nag ñu am fi gan goo xam ne mën naa wax ne liggéey bi da fay am da fay am yaay comme nit ni mi amé yaay di am baay alcorane min kulli shay'in khalaqna zawjayn nit ku nek dañ lay amal yaay amal la baay liggéey bi ni ñu am fi ci bayal bi si ndigalal khalifa bi suñu wajju Cheikh mohammed al Mahi ku wax kat dana soxla agn dana soxla nan dana soxla reer dana soxla lu nek ñu am ko xamne nak spécial ba liggéey bi commencé ba légui lolu moko togo diko def amul bés bu manki muy Seyda Adjaratou yaa neena Thiam mu ngi nii teew demoon neen fa ànd ak président Baye Ciss ak suñu papa Cheikh Mouhamed Siraaj Diin Cheikh Seydiéri mu ngi nii am ma ngi sañ si sama sañ daama ñëpp ñu dem si këram yéen ko liggéey bi ndokkeel ko ziyaare ko mu yónni woon trente tonnes tegaa si vingt tonnes muy cinquante tonnes yoo xam ne indee gum na ko si liggéey bi Baye Ciss ne ko liggéey bi kat dañoo am ay gan yu ñëw jóo ko ngodi ba dañoo bëggoon fan yi fi am nga ñu dimbalante yow nga bàyyi leen xel si affaire yi añ ak reer mu ne ko loolu sama barkeelu la man si liggéey bi bàyyee ma ko waaye si ne ko déedéet dama lay ñaar rek tamit nga bàyyi ma ma barkeelu mu ne ko déedéet yow jox na la liggéey bi nii nga amee ko man tamit bàyyi ma lii muy sama xidma si liggéey bi keroog bés boobu mu wax ko ba tey jii mësta manqué bés boo xam ne añ bi ñëwut wala reer bi ñëwut ñun lay gërëm bu baax a baax di la wax ne sa doom jii nag dinañ ko gërëm bu baax a baax moom la ñu oo guddee bëccëg di laaj di ko soññ di wax ak moom waaye heure boo waxee moom bala ngaa coupé rek añ bi egg si xam nga léeg-léeg nga am ay gan siesise ñu ñëw si liggéey bu ñëwee bu xëtee jotee rek ñu laajte añ waaye boo oo sàmb rek añ bi egg dëgg-dëgg ba nga boo ee maas ba ngaa coupé rek añ bi egg ñu ñuy gërëm maas bu baax a baax tukki nga fi dem aj dem omra dem fu nekk waaye mu ngi taxaw takkaayu moo ñoom Saliou Lo ak mbooleen njaboot gi si façon boo xam ne wax dëgg yàlla sofi fi timit ak la ngay def ñom ak ñom lu ñuy def dara wut deug deug cham ñu lay gërëm bu baaxa baax wax deug yàlla su fekkone ne am neen ñu mel ni yow fukk rek la wax konoon amul kenn ku ñëw fi ci liggéey bi di am problème waye wax deug yàlla da la gërëm bu baax sant la ndax dafa am lo xamné yombut bés bu nekk yombut de par par semaine par wèr jëfé wut waye bët bu set yombut te wax deug yàlla bët bu set ya yone fi añ ak dëgg-dëgg loolu bu ñu ko waxut si bési tey bi nga xam ne bési mbooloo la àddina bi yëpp xam ko su boobaa am na lu des suñu diggante ak si borom moo tax force ñu feeñal ko di la ñaanal bu baax a baax si turu suñu papa Cheikh Mouhamed Sy moo xam ne moo fi teew comme représentant sëriñ bi waaye comme assistant si Baye Ciss waaye ñun chef jëri ñu fi ak Amanges ak système sëñ daa moo xam ne daanaka mën nañu wax ne mooy porte-parole liggéey bi jiite communication bi mu ngi fi ñuy gërëm ñëpp ñoo xam ne teew neen fi ak ñun Cheikh Abdallah domi al khalifa Cheikh mohammed Maye ma nga ne ne la ko defon timit ke diwaan bi passé dafa summeeku futteeku du liggey tay timit ñewana na futteeku du liggey Cheikh ibrahim ndjay mu fi bayam seigne Maahi Adim pap salam ñëpp ñu fi baye sey it ak Cheikh Baye mu pap mu Mounzir mi nga xamne mo timit kenn la ci liggey kat bi ñëppan fi ak bàcc nga xamne dafa nek suñu xarit di ñëw di liggéenti liggey bi fu tollu ak lu manki loolu yëpp moom tamit mu ngi si bàcc ñu ngi koy gërëm bàcc di wax nda ya neene bu ñuy wax beneen joom ndax lu ñu war a wax suñu diggante ak yow dafa bëri te lépp nekk lu rafet dëgg-dëgg ñu ngi lay sant beneen yoon di gërëm sa mbooleem taalibe nag mosuñu fay ñëw indi fi añ warante fi war ñu xuloo lu mu bëggee rek noonu la ñu defee yekk leen ñu yekk taxaw leen ñu taxaw def leen ñu def wax dëgg yàlla xam ne ne yar nga leen lool yàlla na la yàlla dimbale yow tamit yàlla yokk sa fan lool yàlla barke sa njaboot defal la jàmm sàmm la sàmm njaboot gi lépp loo bëgg na yàlla yàlla kontaan neen trop dañuy jël kàddu gi rek delloo ko suñu mag sëñ Aliou mu sëñ daam mu sànni si ay baat su paree sañ seex mu fii dana wax Papa Saay daal di ñaan wala ñuy jox maas fekkee ne am na ay kàddu ñu sànni ñoom sëttarul ñu sànni jox ñu jox leen kàddu gi ñu ko suñu paree ñu orienté kàddu gi nga xam ne moom leen war a wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem ñu ngi fekk si saal bi waaye ñu ngi nuyu mbooleem ñu ne ci liggéey bi yëpp gan ak dëkk di jël nuyoo boobu yoo def si loxol ki nga xam ne tey moo teew fii teewal fii alxalifa Cheikh Mahamadul Maahi di suñ sëriñ di suñ wéyjur Cheikh Mamadou Siraju Diin di ko nuyu di ko jox nuyu Cheikha Zeyda yanee ne Caam ak mboolem njabootam yëpp mu joxal ko ko mboolem njabootam Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye Niass góor ñi ak jigéen ñi nee na mu ngi nuyu ki nga xam ne moom la xalifa bi teg bi ci loxoom muy le président Baye Ciss di nuyu équipe bi nekk si gannaawam ñëpp ku si mel ni Cheikh Serigne Aliou ibnu Cheikh Ahmad Daam ibnu Cheikh Ibrahim ku si mel ni Seydi Ahmad Niass ibnu Cheikh Ahmad Daam ku si mel ni Cheikh doomi suñ baay Mohamad Munsir ku si mel ni Seydi Tayib doomi suñ baay Alhaji Mohamad Niass ku si mel ni Cheikh Ibrahima Ndiaye doomi Cheikh Ibrahima doomi Seydi Ousmane Ndiaye ak ki nga xam ne tey Baye Ciss moom la ñu boolee démb si téléphone nañu su ngeen xëyee ngeen dem daaneen boolante ak Cheikh Jéeri mu accueillir leen recevoir leen ngeen jëflante ak moom li nga xamante ni noonu laa ko bëggee bon Cheikh Jéeri ñu lay nuyu turu sëriñ bi di nuyu Thierno Diallo Bilal di nuyu mbooleem équipe bi ànd ak Baye Ciss yëpp di nuyu suñu soppe bële di Alaaji Bàcci Mbaay di nuyu mbokk yëpp ci turu sëriñ bi di wax ne ñëw nañu. ànd ak Cheikha si liggéey bii nga xam ne liggéey Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass la moom Baye rek la bëgg yëngatoo mi ak dalam ñëpp Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass la tey nag mu ne damay dem barkeelu si liggéey bi moo tax a jóg. fekk mu yónni woon man ak président El Hadj Saliou Lo bi nga xam ne mooy président fédération daayira kër gi yëpp ak Cheikh Amath Yaani Diassé président président daayira Gambie ak njaboot gi nekk si gannaaw yëpp mu yónni woon ñu pour ñu ñëw fii si beneen ñëwin waaye bi ñu mu ne damay dem si liggéey ba man laay jëm yéen ngeen dem si la ma leen ndax loola man taxul maa jóg bàyyi mënoo koy jëfal dara loo ko jëfal fekk ful ko. lii moo waral ñu ànd ak moom ñëw bi ñëwee moom naroon na dugg sax si fii ndax dugub média yi wala dara ñu koy wane ndax moom nee lépp lu muy jëf jëmmi Cheikh Ibrahim rek tam koy jëf nag gannaaw Baay radiyallaahu anhu mooy xamal ne jëf si yàlla amul moo tax ñu ak moom ñëw fii ziyaara si leen nuyu si leen nee na mu ngi ndokkeel nag bés di tey ñi nga xam ne ñoom ngeen séddee liggéey bi woo leen tey. muy këram sëriñam kër maamam kër baayam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall Sëkkoosi nga xam ne moom nii doomu maam Ibra Fall la da maam Ibra Fall waxoon ne ko yow suma doom nga mu taxaw ci taxawaay bu rafet ci biir kenn maam Ibra Fall nekk koo xam ne kenn maam Ibra Fall kenn ko fa laajte si xin ma ndax moom nee na dafa tànn jëf ka bàyyi wax nee na daal mu ngi nuyu kilifa yi yëpp. di ziyaara xalifa bi di koy ñaanal yàlla di sàkku si moom ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla dimbale ko dëgëral ko yàlla kattanal ko ko may ko wér di jël loolu rek si loxool gi xam ne tey mu ngi fi teew di Cheikh Abdoulah ibn Cheikh Modou Mahi ndax maam alaaji moo ñu ne doom firi doom daay firi bi moomam nee na mu ngi nuyu papaam sëriñam Cheikh Modou Mahi Cheikh Ibrahima Niass al Khalifa di nuyu papaam xaritam sëriñam Mawlaaya Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Seydi Aliou Cissé al imam di ko ñaanal yàlla jàmm ak wér ak fan mu yàgg fi lool ko yàgg fi jàmm ak wér di nuyu porte parole pays bi di Cheikh Maodo Mahi Seydi Aliou Cissé di nuyu mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp Seyda Roqeetu bintu Cheikh Ibrahim ak mbooleem njabootu jigéen gi ñëpp zéro nee mu leen di nuyu ziyaara ci bés bii nga xam ne bésu xidmal Cheikh Ibrahim la équipe bi nga xam ñoo seer liggéey bi ci jiital suñu sëriñ suñu bayjur Cheikh Mamadou Siraju Diin Ibrahima Niass ak ki nga xamne ne moom itam liggéey bi ci loxom muy le président Baye Ciss ak mbolam équipe bi mu lepp di la na mu leen di ndokkel mu leen di gërëm mu leen di ñaanal yalla di sakku ci yeen ñaan yalla daiman lam waxon ak yeen ci salam ba trop bi ngeen ci premier jour liggéey bi and ko ak Cheikh Jéeri Cissé mi mu ne leen dina ci def. fas naa yéene incha allahu rabbi lépp lu fa nit di nekk si añ ak si reer toggoon naa ko ba keroog liggéey bi ñu koy unigré nee si loolu la nekk bi si ay weer incha allahu rabbi mu ngi ñaanal ñëpp nag di ñaanal mboolem jullit yi rawatina mboolem taalibe yi yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura liggéey bi àgg si jàmm bañ unigré ko si jàmm ba simb yeneen liggéey ko bokk ko xalifa bi ak imam ak mboolem njabootu pay bi ndax moom pay bi rek la xam Duudu Baay rek la xam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak jëmmam di ci nuyoo bi suñu baay ji toog Cheikh Mouhamed Siraddine ibn Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass di ci teg Alhaji Cheikh Tidiane Cissé Diéry bi nga xam ne tey ñoom ñaar nii ñoo fi ut président Baye kii utu ko administrativement kii utu ko religieusement ñun ci des nekk fii di ko jàppale ci liggéey bi tey nag ñu am fi gan gan gu spécial comme ni ko Cheikh waxee nga xam ne bañ tàmbalee liggéey bi avant ñuy gas dara ñoom moom la woon ba mu toll fii tey wax dëgg yàlla am mosul teggi tànkam mosul yox-yoxi dem nañ ba miin xale yi nga xam ne sax ñoom la fi ebal parce que koy gis pendant deux mois chaque jour nga gisanteeg moom bu yàggee nga miin ko ñi fi indi àll yi da xale yu jigéen ñi koy séddale ànd ak maas mi Seyda ñu ngi lay wax ne ñooñu sax ñun miin nañ leen ndax koo nekk di ko gis pendant deux moo mu lay indil lekk di lay indil añ ndékki te léegoo léeg ñu bett leen sax oote ndax euh, taalibe yi bu ñuy ñëw du ñuy yëglu léegoo léeg nga toog benn kaar wàcce fee buñ jàqee rek dañ nañ oo maas buñ ko ooyee rek mosuñ koo oo te yàlla dimbaloo ko mu am solution loolu ñu ngi la koy seetal yónni nga fi ay ndaw yu mat yónnantu si dañoo bëgg ma sànni kàddu waaye man damay wax toujours ne euh, gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sant Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moo ñu may teraanga bii teraanga bii mooy lan moo ñu jël ay millions yu bari di defar mbaar moo xam ne kenn taxul ñu koy defar ku dul yonent ci àll Muhammad sallallahu alayhi wa loolu nag li muy tegtale ak li muy dëggal mooy na bàyyi lam na woon ba léegi ci la nekk mooy na moom ba léegi mooy xaritu yonent bi mooy soppeem mooy léppam wax naa ne nag teraanga jii képp ku yàlla dimbale nga man cee def nga xamal na ku la yàlla ko nit nga ko xam ne yàlla bëgg na la ba nag Seyda sa jëf ji ci bàyyi ñun bettuñu ndax xam nañ la xam nañ yaay kan xam nañ lan mooy sa bëgg-bëgg xam nañ lan mooy sa mbébét xam nañ ko ci pay bi xam nañ ko ci yow waaye man damay wax toujours na rek man dama lay bàyyi ak sa sëriñ loolu rek laa lay wax daa iman bàyyee naa la ak sa sëriñ mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu yàlla la yàlla fay yàlla la bàyyi fay yàlla la bàyyi fay teraanga bii nga defal baay yàlla la ko bàyyi fayal boppam bàyyi waxoon ñu ne laa ujaasil ihsaana bi nisyaan ku ma defal lu baax rek du ma la fayee fàtte xam nañ ne bàyyi du la fàtte mukk ba ilaa yawmal qiyaamati bon ñu jàng faatixa ñun ñëpp ñu jéego salaatu faatixa ñu ñaanal suñu bopp ñaanal sayda